سيد الرسائل والرجاء اللهم صل رسول الله على محمد سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القدوس في خيب هاهوت المتجلي في أسماء والصفات في حضرة لاهوت المعبود فيها علي بالملكوت وجبروت وناصوت جل جلاله وعز كمال والصلاة والسلام على من الذي وجدته يتيما فآويته ووجدته ضالا فهديته ووجدته عائلا فأخنيته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله والأحباء دلساتنا ندلن نيو ni ñu leen daan nuyoo fii ñu leen daan nuyoo di sunu chaîne YouTube bi di Akoba TV di leen balu àq di ñaan tabaaraka wa yàlla yal na yàlla boole ñu baal <clears throat> di leen jégalu bu baax tey dañoo soj lool wax dëgg yàlla di sant yàlla di ñaan tabaaraka wa mbas mi nekk ci àdduna yal na ko fi yàlla jëlee ñu ci génn àdduna yal yàlla baal leen yërëm leen ñu ci feebar tëdd yàlla na yàlla ci leen delloo leen seen sago xormatil Moustapha bi nuuril Quraanil Karim di ñaan yàlla. sunu kilifa diini yàlla bàyyi leen fi lu yàgg lool xulofaaw yëpp ci Sénégal rek yàlla bàyyi leen fi lu yàgg lool di ñaan yàlla réew mi ñu nekk di Côte d'Ivoire yàlla saxal fi jàmm yàlla def fi jàmm élection yi ñuy waaj yàlla yàlla def ci jàmm lépp jàlla ci jàmm réew lay ci Sénégal de sunu réew yàlla yàlla saxal fa jàmm saxal fa déggoo bi nuuril quraanil karim wa bi jaahi sidil wara sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mu mel nii ñu ngi ci fukki fan yu am solo yii ñuy dund te muy fukki fan yu njëkk ci weeru zul xijja wala muy weeru tabaski comme ni niñ ko baaxoo di ko waxee te biñ fi jógee ñu fàttali woon ci tuuti ndax jotaay bii ñu toog mu ngi tudd comme ni ngeen ko xamee majlisu zikr <clears throat> te mooy place boo xam ne wala jotaay boo xam ne dañ ci toog rekk saa bu ne ayu bés bu ne ànd ak yéen di wante sunu wàllu diina comme niñ ko baaxoo di ko waxee tabaaraka wa taala moo ñu digal ñuy fàttaliwante wante ba ay jullit lañ ne man yàlla def naa njëriñ lu bari ñeel leen yéen jullit ñi bu ngeen di fàttaliwante seen wàllu diina ndax doomu aadama dafa baaxoo fàtte ndax yàlla tabaaraka wa moo ñu mooñaale fàtte moo tax mu tuddee ñu al insaan fàttekat yi kon ñu ngi nekk ci fukki fan yu am solo bi mu fiy jóge ko ñu waxoon la di la fàttali di fàttali sunu bopp ne nañ ci góor góorlu bu baax ci jaamu yàlla yi ci fànn façon jaamu yàlla bu mu mën a doon waaye ci biir fukki fan yi mu am ñaari fan yu mujj yu am solo yépp am solo benn bi mooy fukk juróom-ñeenteeli fan bi di alxemes bu ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm di yow yawmu arafa yonent bi wax ci ngëneel yoo xam ne beneen bés bu dul arafa amu ko waaye ren mu am particularité ndax dafa tombeek mu tombeek nekk alxemes ñaari sunna di ci daje yonent bi daan woor alxames bu jot ñu laaj ko lu tax ngay woor alxames mu ne ndax guddik ajjuma gune suma borom tabaaraka wa la dina recevoir jëfi jaam ñëpp waaye nag day jaar par kanaalu sayduna muhammadin alayhi salaatu wassalaam mu càmbaar ko la ca rafet mu ne eskay loola jàll sunu borom dencal la ko comme ni ko mag ñi di waxee fu yàq yeggul te mooy ca moom bu amee safaan ay njuumte rasul alayhi salaatu wassalaam comme ni ñu ko alquran jàngalee bil muminina raufun rahim waaye qabla za xarisun aleykum moom ku xër la ci jullit ñi ci xeetu sayduna muhammad alayhi salaam ci xeetam ko defee ñu jéggalul allahuma ba mu des bokkaalekatu yàlla bu dellul ginnaaw ci li mu nekk wala fa tabaarakallaahu ñaari jullit ñu réeroo ba du ñu nuyu wante du ñu sànnantey kàddu lu paase ñetti fan ñooñu dañuy teg seeni mbir kon جارنا na بوني bu ne ak moromu jullitam fu mu toll di defar diggante yi islaahu saati baynina kama amarana rasul alayhi salaatu wasalaam comme ni ñu ko yonent bi daan diggalee fu ñu toll di defar diggante yi moo taxoon nee na tax mu or bésu ndax yi buy yéeg fekk bés bobu dafa war ndax balance am gën sëgam yunun bi Ali salatu moy dafa waxe fa ñun arafa momin mu dan ko wor bisu arafa wax ci yiw yim ci wax ne ku ko wor sunu borom tabaaraku taala dina la bal bakari ñaari at te bokk yi bakkar yu bari mo waral jafe-jafe aduna bi yépp kon nak rek day nak kon nak sanni ben jam ñaar lay doon boko woré di nga am yoolu or arafa waye di nga am yoolu nak ku royaat yonent bi ci lim ko na def te mom dong lañu yalla digal nañ ko roy kon al khamis ngi non bu ñu yalla yalla may ñu man koy wor su ko bis bu ci top di bisu tabaski bi nga xamné ne ngëneel yi ci nek buñ ko doon lim boroom xam-xam yaa ngi ciy wax bët bu set ci rajo yeeg télé yi waaye kenn ku ne man ngay wax lu bokkut ak sa moroom di wax te ñu bàyyi ndax la ca nekk ci dëgg-dëgg sunu borom rek ko xam tabaarakallaahu waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax benn addis bu am solo <clears throat> jëmee ci li ñuy tuddee xarum tabaski jaamu yàlla gu sell googu nga xam ne kere bi ñu fiy jóge ko ñu ngi lay fàttali ne sunu borom tabaaraka wa taala mu ngi ñuy wax ci alxuraan ne deret jigéen di tuur yittelu ma ndawal gi yittelu ma li la ko tax di def rek moo ma yitteel ndax sama jëmm la walla yow da bokk ci ñi koy def dugal ko ci Facebook ndax seytaane moom du ma sa découragé saa boo jógee di ut yàlla mu ngi la ànd ak yow te la ñëwee ndeyjoor chamoy kanam ginaaw ci kaw ci suuf ndax loolu la waxoon la aqaadana siratak al mustaqim la waxoon danaa ñëw ba ci yoon wi nga xam ne fi lu ñuy toog pour ut si la ma ñëw toog fa fu ñëw rek fekk ma fa waaye nag yàlla na ko sama gaañ sama jaam ñi doo mën ci ñoom dara yàlla ñu ci yàlla boole moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne wa ruya an nabi aleyhi salaatu wassalaam man daxa udhiyatahu فإذا خرج من قبره وجدها خائمة على رأس قبره فإذا شعرها من قضبان ذهب وعينها من ياقوت وقرنها من ذهب صلوات الله وسلامه عليه فيقول من أنت فما رميت فما رأيت شيئا أحسن منك فتقول أنا قربانك التي خربتني في الدنيا أركب على زهري فيركب عليها ويذهب بين السماء والأرض إلى سل العرس أو كما قال صلى الله عليه وسلم يننتب عليه الصلاة والسلام ني كيب كو خمني تباسكي نيونا nga ut xar comme niñ la ko santé waxon nañ ko kérok comme niñ la ko santé nga daldi ut bésu tabaski gannaaw boo jullee nga lewatal ko nga rendi ko te yàlla tax jaamu yàlla ne jaamu googu yàlla dina la ko dencal te keroog waxoon nañ la ko ndawal gi ci yow la dellu si lépp ci yow la dellusi waaye jaamu gi nga def te yàlla tax yàlla dina la ko dencal nee na yowmal xiyaam booy dekki dangay fekk xar mi mu taxaw ci sa buntu bàmmeel nga ne ko ak taar ba muy àndal bët yaa nga mel ni jamaa bi jën yaa nga mel ni or yaramu kaw euh, xar mi day mel ni sunguf si or buñ boole ki ay sunguf euh, xaalis tabaaraka wallah ca taar ba nga ne ko mosumay gis mbindeef mu mën ni yow yow yaay kan mu ne xar mi daal di tontu na la man de may tabaski bi nga jiitaloon tey jii man maa nekk nii yéegal sama kaw foofu nga xam ne ñëppay tiit ndax dañuy war a traverser li ñuy wax Sirat pont bu dangereux boobu bu raglu boobu nga xam ne moo gën a tëre di jaan comme niñ koy jàngalee moo gën a sew wuñ te moo gën a ñaw paaka wala lañ set bu gën a ñaw te alxuraan ne wa in minkumu ila waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya képp kenn ci yéen dana fi jaar sa borom dogal na ko ba pare pexe amu ci xar mi na la yéegal wàcc yow ca sa sa doon arasu borom tabaaraka wa taala kon lii benn la ci ngëneel yi waaye mbokk yi pour nga am loolu kan la ñuy imité bés bi liñ ciy fàttaliku rek mooy jëfi jaam ay jaam yu yàlla gërëm seenug jaamu ba waxoon ne inni laa udiu ajaral muhsinin subhanahu wa taala du ma sànq mukk yoolob aji rafetal jëmee ci man ma tax mu ne in ahsantum ahsantum li anfusikum bu ngeen rafetalee jëm ci man laa yéene ko moom ndax man tabaraka wa taala soxlawul dara ñun ñoo ko soxla subhanahu wa taala moo tax mu ne ahsin kama ahsana allahu ilayk foo tollu del rafetal booy jaamu yàlla fexeel ba sellal ko wax ji na rafet jëf ji na rafet jëflante bi na rafet te yàlla tax tabaraka wa taala sunu mam ibrahim alayhi salam mom la ñuy fàttaliku ci bëss bi ak soxnam sunu mam hajara ak domam sunu mam ismail bokki bo demé ci suratul an'am tabaarak wa taala mu ngi fatali sunu mam ju tedd ji di mam ibrahim nga xamné moy aba tawhid nga xamné ñaanam ci luñu yàlla joxe sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam yonent bi moo ko wax naa moo daan wax ne ana daawatu jaddi ibrahim man may ñaan ga sama maam ibrahim doon ñaan naan yàlla jox ma surriyatan tayiba jox ma ay sët yu baax doom yu baax fexeel ba ñi génn ci man ñëpp nekk nit ñu baax nit ñu lay wéetal di la jaamuti di sellal jaamu ga sallallahu taala alayhi wa sallam moo tax yàlla di wax ne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 فلما أفل خال إن لم يهدني لأكون من قوم الضالين فلما رأى الشمس باسقة قال هذا ربي فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم يا الذي fàttali ci téeréem bu tedd bi محمد صلى الله عليه وسلم Ibrahim ba mu xëyee ba rek ne ne bàyyi ji azara ndax yéen yàq sa mbokk yi dangeen naa nar a jàpp seen xërëm yii ngeen xam ne yéen a ko yett ak seeni loxo di ko jaamu bàyyi fi yàlla mi leen bind tabaaraka wa ndax ci loolu ngeen nar a nekk yéen de yéen ci lee réer goo xam ne bu ngeen dellul ginnaaw kenn xamut fan ngeen jëm waaye Ibrahim yàlla ne Ibrahim bu mënee ndax ci loolu la judd loolu la fekk baax bu mënee distinguer le bien et le mal euh, séparer ne xërëm yi kenn waru ko jaamu yàlla ne man maa sànni leer ci xol ba maa sànni leer ci xol ba yàlla na yàlla def ñu jox ñu nuurul imaan moo tax yàlla def ba ibrahima xàmmee ne malakutu samawaati wal ardi fi yadillah mu wér ko ping amutu ci duut moomeelu suuf ak asamaan nguuruk suuf asamaan ci loxo yàlla la nekk kon kenn war ko bokkaale moom tabaraka wa taala moo tax mu xëy bés tegal leen fi seeni yàlla seeni xërëm seeni xurfa xafa daal di jublu boromam tabaaraka wa taala nekk nag ci sëyru bu metti te mooy dox jëm ci boromam te mooy di ut yàlla tabaaraka wa taala ndax am na lu nit ci xol bi xam na ne amatul sikki sàkk ci ne moom dañ koo bind ay waajuram dañ leen a bind te ki leen bind mooy borom moom moom kooku rek a yeeyoo jaamu amatut ci yaqin la ci am moo tax ba mu gisee biddiw ya mu ne sama borom a ngi nii kii lay jaamu man waaye nis tuut rek weeru féq biddiw yu suux mu ne ah man bëgguma ku fi jóge ko dama bëgg borom boo xam ne bu fi nekkee du fi mës a jóge laa uhibbul afilin kuy fenk di somo ah ah bëgguma boobu borom bi mu gisee jant weer wi gën a mag ne nañ ñi leer mu ne ah kii laa doon ut sama borom a ngi nii kooku tas ahlu tasawuf wax nañ ci ay xam-xam yu am solo fa tabaarakallaahu xëy na bés danañ ci ñëw insha allahu waaye ba mu ko gisee mu ne kii laa doon ut ndeysaan nis tuut bër set jant bi feeñ ndax weer moom comme niñ ko xamee guddi lay génn bëccëg moom jantay génn bi jant bi génnee nag gën a leer faf weer wi la gën a mag mu ne xaa kii nag laa doon xam naa kon kii moo yebaloon ñii waaye kii mooy ponkal mi ba jant ba soxee na mu jàkkaleeg boroom na ko yàlla soo ma gindiwul danaa mel ni sama gaañ gis nga jamono boobu nag la ko yàlla téyel boppam waaw soo ma gindiwul rek man dina mel ni sama gaañi